Vito Cocktail, une explosion de saveur dans une même et seule bouteille fruits yep yëpp ko Sénégal si anam yu sell naturel jus Vito pour seen goûter doom collation ci bureau ba ngenté manam ju orange ngir may len ju ak tonus jus lol amna bax lol si yaram ak ay yu am solo gingembre bi mom dafa bax lol si góor ak ay vertu bax lol itam si organisme puy bi nak day wañi toy bax si yaram tayit yi leen jus oh, oh dina yok sen katan bolé ci vitamine rek la ñi bëgg so naturel nak vito so excellent pour fête bu doon te lool si yahu gune ak emballage civilisé tour ak jus vito da ngay am choix vito jus et so existe en bouteille de 1,5 litre et 33 centilitres vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 ñànku livreur ah. day daw amul arrêt ñànku mooy livreur day daw amul arrêt ñànku ah. livreur day daw amul arrêt ñànku ah. eh, livreur day daw amul arrêt mani la am na fépp en gros détail yee un kilo am 500 grammes 2 kilos 505 kilos ndimbal njaboot yow ñànku kii yow ñëw naa seen place di la fa wër fekkuma la fa taxaw naa ci bopp koñ fu ne pointé naa fa di la wër nga may. Ah, nga may taw eh duul laa la wax. yow doxaankat bi nekk ci ma koy dénoncé am ñaari jabar mënu leen dara di doxaan ma koy dénoncé mu fekk ma fi di am lu muy wax ma koy noq nga may sot. ma may sot yow yaa ma sot kay. yow yaa ma sot xool bët bi ngeen ko def. waaw tam wax kamoo ci saa yaay saag saako ba tey. waay merde nga am yaay saag saako ba dama lay noq tey ba nga réglé. mais waay waay man. indi indi andi vidéo bi. waaye waaye lii yëf jàmm la de. waaye nan nekk yëf fu doon may raak nga nga may sot doxaankat bi nga koy jàppale. da nga naan da ngay dem doxaan doxaan la. man maa maa doxaan la waaye duul nga. booy saa yaay may saagale te góor eh, man sama loomu eh, góor eh, ngay xaru da ngay xaru boo ma tontoo piip ma noq la ba nga réglé booy bu ndaw bi nekk ci koñ bi fii nii mooy oignon bi oignon dix bi gis naa la nga fay ñëw fan yii gis nga bis ma la fekkaatee bis ma la fekkaatee naa lépp say fan allez sooy jàpp sooy jàpp sooy jàpp sooy moom laay zirik naan ko bisaab bi ak jinjeer bi nekk ci biir dama koy naan li ngeen ma def nii sama bët bii saa su ma tase yow nga war vidéo dinaa ko nangu noq la jaar nii wàññeekul eh day daw. dama man nii laay jaar eh jaaral nii. waaye dina ko may sakk fu may jaar. ah lii de xam naa eh. ne lii moom lii de moom neex na. jaaral ah. ak si Vito. livreur ah. day daw amul arrêt ñànk mooy day daw amul arrêt ñànk ah. livreur day daw amul arrêt ñànk ah. eh, livreur day daw amul arrêt mani la am na fépp Fall naka mu gën bi ah sang mu ngi nii ah. ok macha allah ok waaw boole loolu ak man. non non non. ah mais coono bi naa ko woo. waaw ah, salaam. maa ngi waaw yaa ngi ah. dafa am ma bëggoon a nii. d' may jaay jus mhm. maa amoon benn livreur bu ma bëgg a yóbbu nag kër madame Ngom nday jaay. kër madame Ngom. Ndeye Diagne. waaw waaw dëkk fii rek maa si fàddu mu yàgg. ah yee waaw waaw xam nga min nga foofu. xam naa bu baax a baax waaw lii de laa bëggoon a yóbbu rek ñaata la foofu. waaw bu dee yow jox ma 1000 francs rek garaaw garaaw noonu nga ko gisee. Ndeye Diagne nga rek. amul benn problème man ci lii laay liggéey gis nga lii ñun lii lañ xam. yow laay topp jeex na tàkk. yow maa maa ngi nii nag. léegi nag soo demee. Mhm. madame Ngom la tudd Ndeye Diagne. madame Ngom maa si fàddu mu bi noonu rek léegi yow jox ma sa numéro ma message sa numéro. bisimilah jëlal après ma dugal la fa sa paiement. loolu daf may neex 76. ah dégg nga di waaw. 388. c'est bon. 59 51. jeex na yow ñoo far. waaw na xarit fexeel ba nday jaan jot ci wala mu ngam du problème ci du problème. yow ñoo na ci jot de. yow na sa xel dal jeex na yow loo bëgg yàlla na jàmm. dégg nga man nañ rek. na. yaay sama càq càq bis ni ki tey. pour tous les tours daw ma de suite <laughs> waaw nu mu demee merci. mooy li nga gis ni mu demee mooy li nga gis. kii càqal. càq càq la. day yóbbu li mu. ni mu yor bi man na. da man ni ma ah. yow. yow. cak cak VIP rang merci ok dinaa ah. Ah, ko gérer non loolu problème di yàgg moom di yàgg moom chéri demal waaye eh yow mutu jàmm bi nga tëdd ba jëm sama bët yi yëpp def ci ni pour la yéen laa këdd sama wala booy bi ah yow booy bi man ma yow man maa tax nga këdd moto booy bi waaw waaw waaw saa fekk saa fekk livre la la sama bët yi man di. nga livre la. waaw fay ma sama xaalis ma dem. damaa yore salaire. ka yow. waaw. <laughs> kañ laa yore salaire. man li ma doon liggéey. li ma doon waxaale woon. waaw dama laa waxoon dama lay fay. oui yow. nga xaaral ngaa def. loolu ma affaire li nga wax ni waxuma ko ba léegi. ma tax nga bàyyi naa dajee ma sama xaalis nga jox ma ko ma des sama bàyyi naa vidéo bi. jox ma la man maa la fayul. tu te fayoo ma yow heure booy wàcc.

jël sama jus di ko doxaane pour yow yëguma ko yëpp ma teg sama tànk loo gis bis lay xaar. sama fay sama xaaj dama dama lay yóbbu tànn dama lay. dama léegi sama moto bi nga xam ne ay bànn dégg naa ñoo la ko. teg door la nangu ko yow ma ci dëkk bi laa dëkk. teg ko dama fi ma toog laay toog li jënti li may jënd waay waay waay sama xaalis sama xaalis nangu ci yow joxuma la. sama xaalis waay waay sama xaalis. waaw sama xaalis sama xaalis la yow xam nga ma yow koo xam koo xamul waaye man xam nga ma ku yow sa yëfu dof-dof man maa la gën a déquinze maa la gën a bandi téeméer ju lii waxoon na ma waxoon na ma caa waxoon na ma caa ma ñëw di liggéey yow waaye sama xaay ma ma sama xaay lekkul li ma fi tam yëpp ci càcc di ma fay sama xaay su ma dee gànd ma dee gànd may di ma fay sama xaay ay ay sàcc ay sàcc ngeen nag ay sàcc ngeen nag liggéey doon nii yow fay di client ay investir ngeen nag waaye kay ma ragaluma la ba ma xamul da nga dem laajte mii fañ yi toog fii yow xanaa xamoo ki nga liggéeya bandi nga ay mbii fañ ak ay ay ay ay ay jugal yaa bi di nga xam jugal fi jugal fi kii lu muy duróo eh, yow xaaral yow ma yow ma yow xaaral tuuti su xam tu ma dem sànni ma la ñëw. bu la bëggee ma taxaw fii sax ma damaa ragal pëlis mais ma mu ngi liggéey ci usine bi tam mag ba yow yow yow yow fii nga ne waaye baax fa yow waaye sa cocktail neex